dalal tey euh, Seydi Gassama directeur exécutif Amnesty International section Sénégal ñu lay nuyu di la dalal euh, monsieur Gassama. waaw maa ngi lay nuyu soxna si nuyu képp kuy déglu Rewmi FM. waxtaan bi ñu koy amal euh, ci contexte gi nga xam ne dëkk bi jax na ci wàllum politique tax ba ñu justement interpellé la ci li jëm ci droit de manifester tey ban constat nga ci def si suñu réew. constat bi ñuy def mooy constat bi ñu yàgg def rek dox ñaxtu sañ-sañ la boo xam ne yelleef la boo xam ne euh, charte réew mi moo ko jox Sénégalais yi euh, dafa yàgg nag ci charte réew mi. Mm-hmm. Euh, nekk ñeneen charte yoo xam ne Sénégal daf ko signé. Mm-hmm. bokk ci di charte yoo xam ne dañ leen tënk ci Nations Unies. Mm-hmm. waaye li ñu gis mooy. nguur Sénégal. Ah, muy nguur Abdou Diouf ba Abdoulaye Wade ak Macky Sall. sañ-sañ boobu dañ koo dañ koy gàllankoor. Mhm. dañ koy gàllankoor même si ñëpp xam nañu ne Abdoulaye dafa gën a dëgëral ndax xam ngeen ne constitution 2001 euh, dafa supprimer li ñuy wax régime d'autorisation maanaam léegi citoyen sénégalais euh, n'est-ce pas yoon tegatu leen ñu dem ci préfet di koy ñaan mu autoriser leen. Mhm. Ah, di ko ñaan mu may leen pour ñu dox ñaxtu. Mhm. yoon daf ko dàq depuis 2001 charte réew moo ko dàq. li nga xam moom la charte réew mi andi mooy da koy yëgal préfet. maanaam soo bëggee dox ñaxtu da ngay dem ba ci préfet nga yëgal ko ko. Hmm. pour que mu jël ay matuwaay. n'est-ce pour mu ne na yàllakaati ay gendarme ñu encadrer sa sa dox ñaxtu bi pour que ku ci bëgg a dugg pour créer ay fitna ñu mun ko euh, maanaam maanaam maanaam jàpp loolu moo xew ci biir réew mi kon yéen taskat xibaar yi war da ngeen war a di bàyyi di wax ne préfet préfet autorisé wul hmm. préfet amatul droit pour autoriser préfet dañ koy yëgal hmm. euh, léegi nag mun na interdire waaye su dee dafa war a interdire dafa war a teg ci yoon ndax ko da am na situation yoo xam ne n'est-ce pas yoon may na préfet pour mu interdire mhm. lu mel ni mbas mi bi mu fi amee n'est-ce pas préfet su interdire ñëpp xam nañu mbas mi am na fii mhm. dañu suñu dajee mun na law andi yeneen problème mhm. euh, wala boog réew nekk ci musiba bu rëy boo xam ne nest ñi war ñu am xel di manifester dañu war a manko pour sauver réew loolu yëpp nekkuñu ci ñoom li ñuy wax li ñuy wax trouble loolu mooy liggéey police man trouble à l'ordre public fu am rek fu nar a am police ak gendarme dañu fa war a teew pour mun ko pour mun pour mun ko prévenir. Mhm. kon amuñu droit di toog rek di invoquer trouble à l'ordre public te duñ ko expliquer généralement duñ la wax trouble boobu fan lay jógee ak kan moo koy def trouble public rek daal interdire je crois que muy wane mooy Euh, euh, dañ jox Sénégal yi ay droit ci seeni charte ci charte réew mi mm-hmm. Mm-hmm. waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo wara a ñoom ñoo réew mi mm-hmm. n'est-ce pas dañ leen di xaañ ce droit là je crois que loolu situation boobu la ñu nekk tey ci biir Sénégal nga wax lu am solo préfet kenn tàggu ko dañ koo yëgal euh, tey amalgame bi c'est à quel niveau justement autorité préfectorale mi nga xam ne chaque jour ay arrêté am da nga ciy gis Euh, li ni mel wala euh, journaliste bay joxe xibaar bi wala ñoom ñii di concerné yi. waaw defe naa journaliste yi dafa am li ñu tàmmoon di wax depuis jamono ab Diouf n'est-ce pas moo tax ñu tàmm di wax le préfet a interdit préfet dafa dafa dafa autorisé wul. je crois que loolu euh, mun nañu wax ne journaliste seen information bi ñu a am. ci wàllu yoon euh, amuñu ko ak ci wàllu administration moo tax ñii wax préfet dafa interdit. mais ñoom euh, acteurs yi léeg-léeg nga jox leen kàddu loolu nag waruñu ko wax parce que Sénégal jóge na ci régime d'autorisation. Hmm. charte réew mi bu 2001 moom moo créé régime déclaration maanaam léegi yëgle la ñuy def waaw soo bëggee dox ñaxtu da nga koy yëgal préfet. Hmm. pour mu jëlee matuwaay waaw amatul dem di koy ñaan pour mu may nga dox ñaxtu loolu mooy. li nga xam ne yoon santaane tey ci biir Sénégal. kon nañ ko xam noonu ñu bàyyi di jox ay préfet pouvoir boo xam ne yoon mayu leen ko. Mhm. waaw léegi nag suñu interdire boobaa nañ leen laaj lan moo tax ñu interdire. Mhm. Eh, waaw lan moo tax ñu interdire situation Sénégal tey mooy interdiction bi dafa dem mel nekk en règle. Mhm. ndax ñoom at mu nekk di gën ay statistique eh, ne waaw ñun dañuy respecté droit de manifestation et cetera waaye soo xoolee bu baax ci biir li lépp li ñu autorisé mooy. Ah, ay nit yoo ne dem nañu préfecture. Mhm. waaye saa yi yenn saa dem préfecture seen matériel ñu doog a dem déclarer. Mhm. Eh, pour organiser ay tandibéer. Mhm. organiser ay sabar organiser ay ay lamb wala boog mu am ay xew lu mel ni ngénte wala dëj ñu baare tali loolu mooy gën a fees ci seen statistique. waaye lépp luy revendication yu syndicat yi di def yu parti politique yi di def wala société civile suñ ci mayee ñaar n'est-ce pas xaañañu leen ñett loolu mooy situation réew mi kon. nekk na ci réew nekk na ci réewum démocratie boo xam ne mhm. eh, eh, liberté d'expression ak liberté wu dox ñaxtu mhm. dañ ko dañ ko néewal doole te loolu liberté boobu mhm. moomu a tax eh, citoyen yi n'est-ce pas di di di di di di di wone sa naxar su dee xam ne leen naxari ñu dox ñaxtu état xam ne bërëb sangam goxu sangam nit ñi nga askan ñi nga xam ne ñoom la fa nekk. am na li nga dañ ko manqué moo tax ñu dox di ko ñaxtu. waaw su ñu leen xàññee loolu nag boobaa ah benn bunt rek la la ñu leen may. Mm-hmm. mooy ñu toog nangu ko wala boog ñu sippu. kon ci cas de figure bi euh, euh, mën nañoo wax ne dañoo violer droit wu ñenn ñi benn classe politique bi bëggoon a manifester. man loolu la yaakaar parce soo seetlee bu baax. Euh, euh, maanaam article bu code électoral bi nga moom la gouverneur Dakar njëkki génne mm-hmm. mais ñoom dañu xam ne article boobu mayu leen pour ñu interdire manifestation mm-hmm. ndax article lu muy visé mooy euh, liggéey taskat xibaar yi liggéey boo xam ne dañ dañ ko mën nañu couvrir ay événement yi mm-hmm. parti politique yu organisé ci période préélectorale donc liggéey taskat xibaar la visé waaye visé wul Euh, politique sañ-sañ bi nga xam ne jox nañ ko euh, askan wi mm-hmm. parti politique yi pour que ñu organiser ay manifestation mm-hmm. loolu nag bu ñu demee ba xam ne loolu a mënatu dox mm-hmm. gis nga rek préfet dafa daal di euh, interdire manifestation suba waaye fi mu ko teg mooy trouble à l'ordre public maanaam dafa ragal ne suñ ko organiser dina am ñoo xam ne dinañ ci rax te ñi ci rax noonu mun nañu maanaam yëngal dëkk bi loolu lu loolu la ci wax donc je crois que te loolu dafa doon lu classique mooy li ñuy faral di dégg toujours sax ñuy interdire. Mhm. mu si Ndakaaru ak feneen ci biir Sénégal. Euh, monsieur sama mu am benn discours bi nga xam ne ñu ngi koy dégg boobaak léegi ay hommes politiques am na sax ay journalistes tey ñu euh, yor kàddu googule muy terme rebelle gi nga xam ne dañ koo jël di ko étiqueter euh, ay nit ban njeexital la mën a am. loolu defe naa mooy discours bu gën a grave bi nga xam ne maa ngi koy mos a dëkk ci Sénégal. Hmm. parce que euh, ñëpp xam nañu ne li xew Casamance. Mhm. ne soo lu mu jural réew mi ci biir musiba. loo xam ne ñu ngi naan ay ñaari junne ak li ko ëpp ci ay nit ñàkk nañ seen bakkan mhm. ñii miin dagg nañ seen tànk euh, am nañu ay junne junne junne doomu Casamance yoo xam ne ba léegi ñu laxu daw laxu Gambie wala Guinée Bissau mhm. euh, dëkk yu bëri yàqu nañ ci ah, mu am nag. ci fanweeri at yi passé wala ñeent fukki at yi passé euh, euh, doomu réew mi ñu bëri yoo xam ne dañ ci liggéey liggéey bu am solo ñun am ni si bokk nañ ci rado euh, kilifa diine yi ah ki muy jullit yi ak ak ak chrétien yi mm-hmm. kilifa aada yi mm-hmm. association yi nekk diggante séeréer yi ak joolaa yi amul effort baa defuñu ko pour que jàmm mun a dellu ci xelu ka nit ci Casamance ci seen xel ak seen xol. Mm-hmm. Ah, def nañu liggéey bu am solo. Mm-hmm. liggéey boobu yëpp te am na ay nit yoo xam ne pour seen intérêt politique dañu soso ci Macky Sall. Mm-hmm. di profité ci régime bi. defalee régime bi su fi jógee rek ñoom seen àdduna jeex na. nii ñooñu nag ñoom ñoo fi nekk di dugal Macky Sall ci biir erreur. su ko Macky Sall dafa war a tey wax ji ay ñooñam. ñu arrêté ko ñu arrêté ko. Ah, depuis rébellion Casamance bi ñu commencé ba léegi ñeent fukkaat yi passé kenn musul dëgg ay rebelle jóge Casamance ñëw Dakaaru ñëw def fi ay toj-toj kenn musu ko dëgg waaw te am na jamono yoo xam ne mënoon nañu ko def ndax amoon nañu doole mhm. am ay nit partout ci biir Sénégal mënoon ko def defuñu musuñu ko def mhm. kon kenn mënul imaginer tey mi nga xam ne MFDC li li fa des euh, daanaka daanaka bëreetul da soo xoolee tey ñoom Salif Sadio ak ki nga xam ne moom la ñu wane photom temps yi naan euh, moom moo ñëw pour taal Dakar mais ay maget lañu mhm. amatul benn xale ci biir àll bi. xale yépp ñu nekk ci biir Casamance dañu won gannaaw rébellion MFDC. Mhm. te li ñu jublu mooy nekk ay sénégalais vigile nest pas jël bi nga ne moom la lay fii ci biir Sénégal. Mhm. kon suñu buggee dellu suwaat di créer ay ay mhm. euh, wala bokk ay rebelle ngeen da ngeen bëgg a bokk Sénégal pour tas je crois que loolu lu ñaaw la. président warul nangu ci biir gouvernement bi nga xam ne moom moo ko ay nit yoo xam ne encore une fois seen intérêt kese moo tax ñuy wax. nekk fi di yàq xolu nit ñi di yàq xel nit ñi ci Casamance. war ko nangu. war ko nangu maa ngi ko interpellé di interpellé kilifa diine yi ak kilifa aada yi. pour que ñu wax ak moom mu arrêté n'est-ce pas. c'est nit ay nit bon ak ñuy soxla yoo xam ne ñoo nekk ci ci wetam ay nit yoo xam ne seen intérêt rek seen intérêt bopp rek moo moo tax ñu jóg n'est-ce pas ñu nekk fii daan encore fitna ci biir kaso mhm. loolu vraiment euh, appel la bu mu bëgg a Euh, kilifa diini yi. Mhm. kilifa aada yi. Mhm. y compris Macky Sall moom ci boppam. si jàmm googule sax tey tension bi bëri na euh, ci wàllum politique bi en tant que défenseur des droits humains ngeen dégg yenn euh, ci classe politique bi opposition rawatina ñu jàpp ne dañoo salfaañee seen ak ak seen yelleef ndax am na ay jéego yu ngeen ci def ngir nag dal mën a am mbir mi en tant que amnistie. ñun bi mu commencé ba léegi bi mu balaa affaire bi di commencé la ñu yëkkatoon suñu kaddu. Mm. wax ne euh, li nga xam ne réew mi moom la soxla. Mhm. ak démocratie Sénégal fi mu toll wala boog fi ñu yaakaare ne fa la toll. Mhm. war nañu mun a euh, saa yu el sa ñëwee rek fexe bi ñëpp bokk ci. Mhm. ndax su ñëpp bokkee n'est-ce pas loolu mooy andi jàmm ci biir réew mi askan wi moo war a tranché moo war a décider mais nañu administration seen rôle mooy fexe ba ñëpp bokk ci élection yi kon administration li ñu xaar ci ñoom mooy. ñu nekk au service des citoyens mhm. maanaam nekkal fi askan wi mhm. nekkal fi parti politique nekkal fi syndicat nekkal fi ay nekkal fi euh, société civile mhm. loolu mooy seen rôle kon tey ñu suñu woon andi listam te liste bi am erreur li ñu doon xaar ci état Sénégal n'est-ce pas mooy ñu woola leen ah sa liste bi de am na erreur jëlal nga dem corriger nga andi nga andiwaat su dee nag nit ki dafa bañ wala parti bi dafa bañ a duñu corriger boobaa mun nañ la sanction te ñëpp ñëpp ñëpp boo xam ne n'est-ce pas li yekkamti rek moo gis benn erreur bu ndaw ci liste opposition. Hmm. Ah, wala boog même liste pouvoir daal di ko gaawantu éliminer éliminer si liste boobu n'est-ce pas yóbbu ko tamit ci conseil constitutionnel ñooñu tamit au lieu que ñu seet. intérêt réew mi hmm. ak stabilité réew mi ak jam ci biir réew mi daa hmm. moo tax ñu leen di tudd les sages les sages le terme sage là xam nga tudd ñu ko waa cour suprême tudd ñu ko waa waa ñeneen tribunaux yi ñoom lañ ko tudd parce que yaakaar ne ay mag lañu duñu ay ay gone ay ay mag lañu. Mm-hmm. yàgg na ci magistrature te war nañu fa nekkal n'est-ce pas pour doxal li nga xam ne moo yokk démocratie moo yokk réew mi moo yokk jàmm ci biir réew. Mm-hmm. ñoom tamit ñu jël décision boo xam ne euh, tey ñëpp ñëpp ñu ngi koy ñu ngi koy gagné. Mm-hmm. kon euh, il faut que ñu xam ne démocratie du ay texte rek maanaam bind ay loi Euh, euh, tënk tënk ci loi yooyu démocratie mu war a doxee mhm. démocratie dafa laaj ay loi dafa laaj ay texte waaye dafa laaj tamit ay démocrate maanaam ay ñi nga xam ne ñoom ñu nekk lang ci bi. Mhm. surtout ñu nekk au pouvoir ñu nekk ay démocrate mhm. maanaam nangu ne war nañu doxal démocratie et que askan wi moom moo yore baat bu mu. ñu jeexaleeg journée mondiale de l' enfant africain ñëw màggal ko ci alxamis bi euh, mu tombeek suñu réew xale yi euh, ñuy gën a dégg ne euh, tey ñu ngi exposé wu à des abus ñu ngi leen di gën a exploité à travers mendicité bi ban jàngat. jàngat bi ñu am mooy. Euh, état Sénégal. Mm. musul maanaam toppatoo xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fi ci biir Sénégal. Mm-hmm. musu leen ndax soo seetee tey euh, ci biir réew mi. Mm-hmm. Euh, képp koo xam ne gàngate nga ñëw si biir Sénégal. Mm-hmm. li nga yóbbaale comme carte postale Sénégal. mooy ay gone ñu tudd leen ay taalibe. yore porte tamate di dox tànku neen yaramu neen di yelwaan nest pas pour lekk ak li ñuy wut si sëriñ daara. kenn bañul jàngam jàngalum alquran waaye njàngam alquran boo xam ne dafa dañ ko laal ci kaw esfaat ay xale mitit ay xale boobu kenn bëgguñu ko ndax soo demee Arabie Saoudite amu fa soo demee Maroc amu fa amul benn benn dëkk naar boo xam ne ñoom ñoo ñu jox diine l'islam doo ko fa gis kon nañu bàyyi di wax ne ku critiquer njàngalum daara nañ koo defee tey Sénégal da nga contre l'islam ndax man li ma fi gis dem naa ci réew arab yu bëri gisuma ko fa kon nañu xam ne état xam ne dafa am obligation protéger ay xale Ah. Mhm. te ñun li ñu ko ñaan mooy na fexe ba mu organiser daara yi jox leen lim leen war a jox ci alalu réew mi pour que xale yi mu di ci jàng. Mhm. ay ci condition conditions yu sell yoo xam ne dañuy respecte seen ak seen loolu su weesoo tamit am na question maltraitance. Mhm. Ah, amul bés boo yow ci biir Sénégal te déggu faat nañu benn xale ci ci ci ci ci ci journaux yi. bés mu nekk. saa yoo yeewu rek fu nga dëgg ne rey nañu xale feneen teg nañu xale métit feneen mm-hmm. euh, siif nañu xale feneen mm-hmm. chaque jour dañ ko dañ ko dëgg mm-hmm. yooyu nag c'est vrai état war na ko xeex euh, ak tribunaux yi maanaam di jàpp nii leen tëj ci biir kaso waaye li nga war a def mooy gën a ñaax askan bi gën a sensibiliser askan bi pour que ñu xam ne doom ak xaleel muy avenir réew ay mag mu ñu yor ay gone di leen toroxal ba pare bëgg seen réew avancé loolu mënul am yërmande boo xam ne moom lañ jox xale yi fu mu amul rek. Mhm. yërmande yàlla du fa wàcc. il faut que nit ñi xam tamit loolu kilifa diine di koy wax ñëpp di koy dëgg suñu buggee pour que euh, suñu bëggee condition xale yi mën a changer ci biir réew mi. Seydi Gassama ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf soxna si. Mhm, maa ngi lay nuyu di nuyu sa sa auditeurs yi. merci beaucoup monsieur Gassama.